ngeen jot suñu vidéo da ngeen di abonné a jot moo leen a xam li nga xam ne ubbi na waxtaan wi ba noppi ubbi na ko waaye dafa mel ni tàmbaleen sax li ci gën a am solo ndax joxe na tomb yi nga xam ne ci leen bëgg waxtaan. ngir bañ fee nekk di guddal ndax yi gën a am solo moom def na ko ba noppi ubbi na waxtaan wi ñaanal na sëriñ bi amin ñu ngi aminu ñaan yi wax na it waxtaan wi nga xam ne moom lañ bëgg de fan lañ koy jëmale euh, ni ko sëñ Xasan waxe as-sadaqatu ahamiyatuha wa dawaabituha mën nañ na rek saraxe ak njariñam ak ya ko tënk ya ko tënk wala ay sartam wala yay tax njariñ lañ cay sintu ñu am ko ca yay tax njariñ lañ cay séntu ñu am ko ca waaye euh, sëñ Xasan xam nga lislaam dafa fonk lool jël sa alal di ko joxe yàlla bi nga xam ne moo bind jaam ñi moo leen def ñuy ñuy ëppalante alal comme ni jëmm yi wuutee dangay gis ko am taxawaay am ku am ku ko gàttale am ku diggu doom melokaan yi aussi ku ne day am na nga mel wërsëg yi it noonu la ëppante waaye yàlla mi bind ëppante wërsëg yi daa mel ko bind waaye gënalu ko ndax bu ko gënaloon du ñu teg ci yoon yuy tax ëppante wërsëg yi bañ a feeñ eh, suñ borom mu bind wërsëg yi ëppalante ko moo jox ay pexe yu bari yuy tax ëppalante wërsëg yi bañ a feeñ am na ci alxuraan baat bu ñuy wax infaaq infaaq baat la boo xam ne lépp lu ñuy luy jóge ci nit dem ci nit tamit yoon alal ci infaq lay dugg maanaam maanaam dépensé moo dépensé nit ki mën naa dépense sax ci baaxut bu fekkee da koo def ci am po dep dépensé nga waaye baaxut waaye boo ko defee ci lu baax alxuraan daal di koy jëmale feneen daa di koy tudd fi sabilillahi al infaqu fi sabilillahi kon daal nay seppi ba nga xam ne bukk ca muy ba nga xam ne ci am pongo koy jëmale waaye ci biir infaaq it muy alal juy jóge ci barab wala jóge ci nit di dem ci nit ba tey fa amaat ay xeet yàlla koo fonk lool am fum ko santaane maanaam am fum mu ko farataale jullit bi am na ay alal yu muy war a génn di ko joxe waaye bu fekkee bi ñu farataal dañ cay idaafa baatu alal zakatul amwaali zakatul amwaali mooy asaka ji nit war a génne ci alalam par at wala par ambay saa su mbay ma ñoree zakatul amwaali boobu farata la waaye bu ñu wooree ba koor gi jeex zakatul amwaali yàlla bu ko santaane ngir xeexe ko ëpplanteeg alal gi nga xam ne moo ko dogal waaye bi yonent bi ñëwee salawaatullahi wasalaamu alayhi gis na ne ba tey war nañoo wéy war nañoo gën a taral ci xeex ëppalante gi doonte yàllaa ko def loolu moo tax musantaane santaane bu ñu wooree bay wori na ko ne génne nangam ci sa alal jox joxe ko loolu ba tey am na bat buñ ca yokk ngir wutale ko ak asaka jee muy zakatul fitri kon zakaatul amwaali bokkut ak zakaatul fitri yooyu ma tey ay moyen la ay jumtukaay la yu lislaam teg nit di ko xeexe ñàkk gi ngir di ko xeexe ëppalante wërsëg gi waaye sharia muy dine muy atte yi lislaam teg muy luwaay islamique gis na ne asakay alal jooju ñuy génne ak asakay murukoor yi ñuy génne ba tey doyut waras naa wut yeneen jumtukaay ngi di ko xeexe ëpp lante alal gi ñu wut nag beneen bunt boo xam ne mu gën yaatu nga xam ne amul fu mu yem ku ci nekk man nga ca dem na ko bëgge muy al infaaqu fi sabilillahi asaka am na fu mu daal am na fu mu yem mooy asakay alal ja ak murum koor waaye infaaq amul fu mu yem infaaq nit joxe na ci alalam ba mu jeex tàkk bañ ko ne noo nooy def say gone mu ne bàyyi naa leen ak yàlla kon infaq yaatul euh, am nag ci biir infaq loo xam ne dañ koo baralaat baatu boppam muy saraxe as sadaqa as sadaqa boo waxee as ñi xam dañuy daal di jàpp ne zakaatul amwaal yi bokku ca zakaatul fitri bokku ca waaye ba lépp lu dugg ci infaq bu dul ñaari yee rek day dugg ci baatub saraxe day dugg ci baatub saraxe muy muy baat bu nag muy baat bu yaatu muy baat bu riis muy ni ko boroom xam-xam yi définir niñ ko leerale nee nañ mooy lépp luy jóge ci nit ndax du alal kese nit ki mën naa saraxe ci alalam waaye nit ki mën naa saraxe ci man-manam te loolu dina ñëw ca kanam nit ki nga xam ne bëgg naa am yoolub saraxe te amul lu mu joxe am na nu mën a def ngir am yoolub saraxe kon loola sarax lañ ko tudde kon lépp luy jóge ci nit ki ci alal wala ci man-man boo xam ne bu ca laajoon ak fay ñu fay ko ca waaye da koo def ci coobareewu loola moom la ñuy wax sarax loolu lañuy wax sarax eh, muy nag lu diine gi amal fulla lool diine lislaam amal na ko fulla lool ba jëf ju nit yi def di ko sàkkoo tuyaaba ci yàlla mën naa doon it lu muy fegoo lu mu war a fegu wala lu muy xëcc lu war a xëcc waaye fegu gaag xëcc gaag tuyaabo ji jóge ci yàlla lépp na fekk mu sellal ko ngir yàlla kon baat la bu baat la bu riis lu yàlla santaane la ci alquran sayyidina muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi jàngale ko ci am njàngaleen comme alquran kon wax na wax na ci barab yu baree baree baree baree bare luy soññe ci saraxe waaye sunna muy njàngalim sayyidina muhammad am na ci yu bari yu ñëw yoo xam ne ci ay ahadis yoo xam ne day soññee ci saraxe euh, bu dee ci alquran nee naa bari na du ci guddal dama ci jël rek lu mu tuut tuut benn boo xam ne dana mën a illustrer dana mën a jëmmal fonk gu alxuraan fonk saraxe gannaaw bu ñu génnee fee xeeti alal yi nit ki génne te yàlla sant ko ko zakaatul amwaal yi taxu ñuy wax zakaatul fitri taxu ñuy wax am na yeneen it yu nit kiy def ci lu baax ci alalam te bokkute gi ay nisar ak yooyu waaye saraxe daal saraxe daal saraxa daal day day fekk muy loo xam ne doo ci teg kan koy jox dara te amul waxtu amul jamono amul it ab lim lépp day aju sa coobare waaye da koy def ngir sàkk tuyaabo man nga koo def ngir am loo ci jëyit wara waaye man nga koo def ngir am loo ci xëcc euh, benn aaya mii nii mu ne ci alxuraan ma ngi surtout munaafiqun loolu dana ci feeñ yàlla nga fanaan aoudu billahi min alsheytaani irrajim yaa ayuha alladina amanu laa tulhikumu amwalukum wala awlaadukum an dikrillahi wa man yafal dalika fa ulaika hum alxaasiruun wa anfiquu mimma razaqnaakum min xabli an yaatiya ahadakum almawtu fa yaqulu rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min alsaalihin walan yuaxira laahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirum bi ma taamaluun suratul munafiqun la yaa ngi noonu ab aaya mi ngi noonu boo xam ne mi ngi ci alquran sunu borom di fi ñaaxe ci di ci di moytuloo nit ñi ñu topp addun si bay baña a fàtte bàyyi xel yàlla sunu borom mi ngi ñuy mi wattandikuloo ñuy bañ a topp wut àdduna ak bànneexi adduna ak koomam bay bañ a fàtte lu jëm ci yàlla yàlla yemu ci de nee na ku def loolu ku topp wutum àdduna ba fàtte yàlla nee na ñooñu nee na ñooy ña perte mu ñëwaat ne day leen dund leen ci ci liñ leen wërsëgal day leen dund ci liñ leen wërsëgal balaa dee ñëw kon diggante boobu ko nit ki war na ci dund gi nit ki war na ci profité ngir def ci lu baax ci alalam loolu mooy loolu mooy maanaa sadaqa loolu mooy manaa saraxe e, suñu borom ne ki nga xam ne daa topp dundug àdduna ak wutum koom ba faatu dikkal ko yàlla ñuy xamal ne kooka dana rëccu dana rëccu dana am nu mu feeñale ak réccum danaan yow yàlla soo ma mayoon diir bu gàtta gàtta gàtt ma dellu ko àdduna ci dund ga danaa fa def leneen lu dul la ma fa nekke danaa fa def leneen lu dul la ma fa nekke woon rabbi law laa axartani ilaa ajalin xarib soo mayoon diggante bu gàtt rek danaa ci saraxe ci sama alal bu baax a baax a baax ndax ma mën a nekk bu ëllëgee ci ci xeej yi xam ne dañu am dañuy am ab cër ci yow kon wax dëgg yàlla foo nekk te jógee góor yàlla wax la ñi fi nekkoon te jóge fi rëcc gu ñu rëcc ndax ni ñu nekkee woon loolu ku la ko wax daa dimbali ndax dana dana tax kay rëccu nan fi nekkee woon xam nga ne baaxut baaxum du rëccu yàlla nee na am na ñu fi nekkoon di wut alal dong ba jóge fi dem bañ demee sekki lañ doon yóbbante bañ leen ko jox réccu nañ ndax niñ fi nekke woon suñ borom moo ñu netti loolu ñu war cee jël nag ak waar ak waar ndax doxale neneen lu bokkut ak ni ñoo ñuy réccu doxale woon hmm? ndekete kii topp bakkanam ba dee ñëwal ko day réccu lan lay réccu dañ ñaan yàlla mu maye ko diggante gàtt mu dellu àdduna ba xoolee neneen ba xoolee neneen waaye boo demee ci beneen aaya ci suuratul anfaal sunu borom ma ngi fay wax melokaani ñi gëm yàlla dëgg dëgg gëm ñi yàlla dëgg dëgg gëm yàlla lim na ay melokaan ci ñoom luy tolloog ñeenti melokaan ba juróom yàlla nee na innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat xulubuhum yàlla nee na ñi gëm dëgg-dëgg gëm mooy ñi nga xam ne foo tudde yàlla seen xol dana nux nuxi wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan suñu déggee alxuraan yàlla ji seenu gëm day yokk waaye wa ala rabbihim yatawakkaluun ñoom ci seen borom lañuy wéeru muy ci yàlla jalla jalalu waase kumalu mu tekkee ñooñoo ña nga xam ne dañuy taxawal julli dañ koy fonk waaye dañuy dañuy joxe ci ni leen wërsëgal wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun kon juróomi melokaan a ngi yoo xam ne alxuraan moo jàngal ne mooy juróomi melokaan yi mu mu'min dëgg dëgg war a melo war a danaa ko limaat bu ñu tuddee yàlla bu ko déggee ab xolam day nuxu nuxi bu ñu jàngee alxuraan euh, ab ak gëmam day yokk waaye bu tiitee wala mu jàqi yàlla rekk la xelam di dem waaye day fonk jaamu yàlla yi waaye day fonk it jël ci wërsëgam di ko dimbalee woy néew doole yi yàlla nee na ulaika humul muminuuna xaqan moom ulaayka humul muminuuna xaqan yàlla nee na ñi melokaanu juróom melokaan yooyu ñooy ñi gëm yàlla dëgg dëgg gëm eh loolu am na solo gëm yàlla dëgg dëgg gëm boo ko bëggee boo ci bëggee bokk dangay fexe fexe melokaan yi nga natt ci sa bopp bu fekkee ma nga ca yow fa lay la do sukkuru nga yokk ko bu fekkee nekkut ci yow nga jéem koo làmboo am na nag ñooñu lu yàlla dig yàlla nee na lahum darajatun inda rabbihim wa maxfiratun wa risqun karim yàlla nee na ñooñu yor melokaan yooyu am nañ wàccukaay bu rëy ci seen borom la darajatun inda rabbihim wa koy firee njéggal ñi koy firee àjjana waaye benn la ndax ku amul njéggal doo am hmm? kon infaaq fi sabilillahi waaye jël sa alal la nga ca am nga di ko dugal ci ay bunt yoo xam ne danga cay sàkkoo tuyaaba ci sunu borom loolu alxuraan da caa soññe alxuraan da caa soññe alxuraan da caa ñaaxe waaye alxuraan da caa diige tuyaaba ju rëy dem na ba kii def noonu yàlla nee na <coughs> kooku mooy ci gëm yàlla dëgg-dëgg gëm dëgg-dëgg gëm jullit nag ay delluwaayam yi ci jiitu ñeent la alquran ak xadiis ak xiyaas ak ijma wala ak ijma ak ak xiyaas ñeent yi mooy yi jiitu ci delluwaayu jullit fukk la waaye juróom-benn ca topp ci ñeent yi lañ leen di xool eh, kon manes na ne alquran ak xadiis buñ nee buñ nee alquran ne xadiis xadis mooy waxu yonente bi benn mu ciy firi alquran wala mu cay jàngale attey alquran wala mu koy leeral xadisa bu ñi ko jële ci sayduna abu hurayra radiallahu taala anhu mu ne yonente bi nee na salawatullahi wasalaamu alayhi ku saraxe luy tolloog ab tàndarma ci fàggutéefam mu lew ci fàggutéefam mu lew ci alal joo xam ne moo ko fàggu mu lew ko domm da caa ne te yàlla du nangu lu dul lu lew yàlla kon alal ji lew la bëgg jàppal boobu sëñ Xasan bokk na ci saraxe kon danañ ci ñëw faaw li ngay bala nga ne naan ne fa bala ngaa sañ ci alal ba di ko saraxe wala nga di ko may wala nga di ko joxe fenn da ko moom. kon bu la wut bu la léewut kon lu mu bari bari bu fekkee wutin wa léewut doo ci def sar bu ñu nangu kon lu am solo la xadis bi da caa teg ne wala yaqbalu llaahu illa tay illa ngay wéy nee na yàlla sarax boobu nga jël ci sa alal mu lew la nga jox ko ku ko yellool te yàlla dong tax xadis bi nee na yàlla moo koy nangu ci loxol ndey jooram yàlla koy nangu ci loxol ndey jooram loolu waxin la bu nangoo tegal la ko barab du ko fa teg na nga ko defee woon de déedéet da ko yokk dala ko yokkal dala koy dollil mu joxe misaal ne dalay yaral sarax boobu ni ñuy yare jur gu ndaw ni ngay yare si jur gu ndaw gi nga xam ne boo ñëwee fi gis fi ak jur gu ndaw ren bu déwénee boo ñëwee bu ñu la ko wanee day mel ni du wa nga gisoon daaw yonent bi nee na boo jëlee ci sa alal ju lew saraxe ko ngir yàlla képp yàlla dala koy tegal barab bi la ko yokkal ba bu la ko wanee nga ne déet man lii yëguma fu ma ko fu ma ko yaral ba mu toll ni aw doj ba bu ñu la ko wanee nga ne man di lii wax dëgg yàlla yëguma fu ma ko yónnee waaye ba nga ko fi yónnee tuuti la woon waaye yàlla moo la ko yokkal hadis bi mooy man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu llahu illa tayiba wa inna allaha yaqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li saahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu xatta takuna misla al jabal loolu loolu rekk doyoon na ci ci baax gu saraxe baax na ko ak gaaw gaaw na ko ci am ci maya ay tuyaaba yonent bi nee na boo jëlee ci sa alal ji la lew nga jënd ci ab tàndarma sarax ko nit yàlla moo nangu tàndarma boobu ci loxo ndeyjooram tegal la ko barab di la ko topp tool di la ko nemmeekul di la ko yaral ni ñuy yare jur gu ndaw ba boo demee fa yàlla bu ñu la nee lii moo sa tàndarma boobee nga joxe woon ngay déedéet man lii musu ko joxe kon ni muy jóge ci nekk tàndarma bu ndaw dem ba nekk alal joo xam ne toll ni aw doj loolu masha allahu saraxe te yàlla tax ci alal joo moom rekk moo mën a maye noonu tuyaaba bokkut ak <coughs> bu ma xadis bokkut ak xadis bi naan yonent bi moo ko nett li nee xadis xudus yi la yonent bi nee na yàlla danaan yab na aadam yabna aadam anfiq yabna aadam unfiq alayka yab na yàlla danaan yow doomu aadama li ma lay jox day ko jàllale ma lay dolli yonent bi nee na salawaatullaahi salaamu yàlla danaan yow doomu aadama li ma lay jox day ko jàllale danaa la dolli day ko jàllale danaa la dolli eh, kon bu ñu sukkandikoo ci alquran kon fonk jël sa alal ju la lew di ko joxe ngir yàlla yoon wu gaaw la yoon wu gaaw la ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen